soo déggee arab na la aw wala mu ne na bàyyi ñu wóorutu la lu mu tudd di rectifier njuumte na rabun buuram gi boo xam ne tabaraka tudd na mag sellam ci dara luñ ko war a nirolee ak dara luñ ko war a taqal xam nga tansiu ak tasbihu ak tahmidu ak tahlil bokkuñu si sëg bokkuñu ci ma abasa ba ñaata arafa ñaar fukk bu tubaab bi ñaata leetar luñ ko ëppale doo leetar yooyu ci li ñu gëmee dekkal ak àjjana ñoom teddal ko tax mënuñoo gëm dekkal mënuñoo gëm àjjana yàlla baaxe na vingt-huit boo ko xaajee ci digg bi lu muy doon mu fab quatorze ji moom la ko bopp te moom yooyu mu doxale suñu diggante moom mu mel ni baal wala goj wala lonkukaay lée àllaa ci gën a koy dala ci ñëw léegi ci sa biir julli sa sa sa sa fiq ma dem mu fab quatorze tamsiir jox nu quatorze mu fab quatorze am xaaj ko ci digg bi set set a set set yële mu def ci tas bi set yële mu def ci tas bi waaw ak du ko yaa ngi digg seet yu jëkk yi def na du kenn du man seet yu topp mu ne dara laalu ma cig manqué saar yu ubbee ko ci alhamdu ñaata la juróom-ñaar mooy seet yu jëkk yi faatee lu mu commencé faatiri nag saba i la na am kaafi loo am juróom mu des ñaar boo jeexee ne doo gis ñaar ñu ne tax doo ko gis tabaraka muy firi alhamdu kon nga dem ci furxaan ak mulki indi ñaar yooyu teg ko ci muy set waaw seet ñu des nag musalal ci boppam ñaari sabaa benn yu sabiu ak sabbismi rabbika ak subhaanallasi asra bi abdi leylan mbooleem tasbiha yi siixa bu ci nekk yàlla def na ko ci def na ci maal def ci mudaarion def ci lamar def ci masdar sabaa maal la sabiu mudaarion la sabia lamar la subhana masdar masdar alaaji Malik ne tabaraka aw déedéet ëpp na loolu rabbun taxaddasa la aw déedéet sax ëpp na loolu rabbun taala uluwan taala uluwan inti aawi istighfaar la ah booy julli booy rukkoon loo wax subhaana subhaana rabbi asiwa bi am moom nga wax boo rukkoon yi boo sujjootee lay wax subhaana rabbi lahla parce que àgg nga fin mënatu laa def lu ëpp fab sa jëb yi teg ko ci suuf samp sa tànk yi sa toggukaay jëm ko torox lu mun la passé lool gis nga aussitôt nga min tiqaalil maqaama ilal maqaamatil ula aw duunaha aw amaamaha fala budda bintiqaali taskiri ila taskir bi nga rukkoo yi di nax yàlla naan ko toroxal naa la fii laa mën a yem mu xam ne dese nga si la jë jëyal jëbbi laa la ko suuf nga naan subhaana rabbi si nga daan bi mën a fàtte rek waaye ba nga ne rëbb ci ji suuf xam ne jeexal nga ko ne ko subhaana rabbi laa laa la door a ubbi bunt yi waaw bunt tabaraka aw rabbun ta aw rabbun taxaar aw rabbun taala uluwan rabbi kenn la bisimilah si la saa mi bu koy seli jàng naa ala mu ngi toog kiit la mu delloo fa nu nekkoon ne góor looy ah foofu ma nekkoon baax na de siise defe naa ko de billaahi ay sew sew a ngi ci biir yoo xam ne gëstukat yi kenn mu leen a fi man siise at a ngi ñaari at ma bëgg a ubbi école yu tasawuf rek tasawuf defoon naa sax quartier yu bari ko sànni ndax li ëpp ci li tardé nit ñi ba bañ kilifteef tàbbi tam xam lu ko la war a ko war a déglu dugg berse yëfi bopp dara raw ci nee na gi nee na elmu tasawuf mooy defar nit nit duy nopp ak bët ak bakkan ak tuñ xool yóor xel man sob day la biu mais dama romb xale yu foofu si tabaski benn xale muy focc di jëri suuf ma ne sama xel wala turé ma nuyu ko xel mi ne kii di foofu lu ma ciy nuyu ma dox ñaari tànk sama xel ne ma ndax am na bi daan na nuyu gune ma wàññeeku ne ko salaamaaleykum mu ne ko maaleykum salaam yaa man koo dégg mu ne ko foo ma xamee mu ne ko suuru ak sama ruur ñoo daje ca ila adartul ilaahi fa arafani al ayy al qayyum bik as goos sunu ñaari ruuya daje ca kaw mu ne ko kon nag ndokk ku mel yow laa doon seet ràññileel ma luy bakken ak xel mu ne ko bakken mooy kere nan bul ma nuyu xel moo ne demal nuy jikko ah xel moom bakkan maa ngi tooñ kenn sama waa kër ne ko yow kaar loo dugg lu mu doom sa accélérateur dafa gaaw lool te sa feree bon amatul mu tiit accélérateur bu gaawee nag te feree baaxul da nga mos a dugg ci pax accélérateur mooy xel feree mooy yóbbu xaq foog mu jox la fii nga daw jëm noo fay duggee boo fa duggee ak noo fay génn boo fa duggee nu dem ci xilaas bi yaa ngi woon ci ban woy waaw kañ xam nga aw arbaatun jooju moo lay leeralal ne wa arbaatun jooju atifalu ko ci sittatu alaafin bu doon sittatu alaafin wa arbaatin kon ñu xam ne daf ko ci atifal koy dal dal doon diis waaye da ba mu ne sittatu alaafin la ko bàyyi ak rafaam ñëw ne aw arbaatun rafaa ko bal arbaatun la ko am de aw sittatu ruwiyat min ahli min indi baax dee mi fatiha oustaz booba ko seen ubbeeku jëm bàqara téere yi ne nañu mën nga ci sa bisimilaay bu njëkk ga nga continuer ci ba dem bàqara ba foo yem buraan lan la kan la waaw sëñ Fall kooku day moom yëf ñeenti saar rek la alxuraan maye Abdou Gueye nga attaqué koy yeesal sa bisimilah yi bu dul moom rek matu ko képp te la fëg la fa tax wa baadohum basmala an dururi li arbaatin masuratin maaluma لفصل بين النفي وإثبات بسم الله وصبر واسم الله والويلات الله أكبر ñeenti yëf yi soo jeexee sar bi war nga balaa ngaa dugg ba ne bisimilah dugalu ci ndax diggante fi sar bi jeexee ak bi fi commencé dafa safaanoo waaw naf yu di mooy firi dàq d'accord nag isbaat kon doxa defee liif la am fa doxuli fi ibaadi wa doxuli jannati loolu du saxar bi ci tegu laa xusu laa dug dàq laa mun naa dàq boobu dàq santaane dàq du ànd kon boo ne fa dëkkuli fii baa di wa dëkkuli janaati neel bismillah yi doon wax laa ak xusu waaye fa dëkkuli fii baa di wa dëkkuli janaati laa ma dem wa sabri wasmillahi wal waylati sagg bu ñuy wax sabr dëppawul ak waylu wa tawaaso bil ak lu ci tegu loolu du sagg bu rëy nga ne waylu mi bu mën a nekk waxal bisimilah am déet bismillahi wal waylaati tur yàlla dafa foor waylu waru ca topp wala am lu yow may sinu lu ci tegu waylu baaxul addu ngay dégg waaw kay waaw kay kii la sittatu alaaf kii la arbaatu alaaf kii la sittatun ruwiyat min indi baadihi mi Moustapha nga jóg ca yoor ba di jaabal moog Sidi Aboubacar ba njolloor naaj bi tàng lool gisuñu dëkk gisuñu tàng Sidi Aboubacar seen garab gu sedd mu daw jiitu ci garab ne na bi xaar ma na bi xaar ko mu daw dellu si am lu mu ko wax am lu mu ko jox alaaji naan ne xam naa lan laa ki bëggul kuy génn mbaa ngay voyage ànd yow rek fokk rafiq xabla tariq kama ana jaar xabla daar abdou dañu bëgg ñaar bu ñu àndee ñu bañ a yëg yem ci lépp foog kenn ki ëpp koppa kenn ki ëpp doole kenn ki ëpp xel kenn ki gën a tabi ki kenn ki gën a jàmbaar kenn ki gën a gaaw mais bëgguñu ñu ànd nag balance ci tout parce que kenn la am déet bu ñu àndee seen yëpp ni nii kenn naay dem fokk nag rafiq dafa am sadiq am atiq ñetti tur yëpp Babacar tudd na ko ñëw bu ak rafiq dafa bokkul àndandoo ak àndaale rafiq moo gën a foor sahbu sahbu mooy àndandoo am duggee bokkul ak àndaale àndaale gën a sax àndandoo àndaale soo ngeen ñëwul yeen ñaar it sa àndaale la am déet am sa àndaale la liñ la koy wax bu nga des kër ga sa àndandoo mooy donte tey ngeen ma sa ànd rek yéen a ànd tey donte tey kër nag yéen a ànd daayiman su ngeen àndee yéen a ànd su ngeen àndul yéen a ànd rasulullah dafa def invitation bu rëy daan na santaane torop luy jural jaam ngërëmal boromam musal ko ci menam ba daan na wax ne de leen invitante invité ku ci amul doole invité wala amul a xolom it buñ la invité wuy ji soo demee buñ la joxee lekk lekkal soo ooree dogal te lekk yàlla jullit bu lekkal moroomam ñamam moo ko gënal ku ko fandeel fandeel gi lu mu koy jëriñ kii mën na ci am tiyaaba dafa am benn buur bu saay-saay bu jëng bu bari doole am jamonoom asamaan si tëra taw façon bu ñuy def pour mu taw ñu def ko tawul mu seet sëriñ ba rawoon ci jamono boobu oolu ko na ko yow dégg na yaa fi nekkal yàlla réew maa ngi en gàncax gàncax dee jur gaa ngi dee nit ñaa ngi dee ak mar façon bu ne def nañ ko tawul waaye nee ko bu tawulee tey ci guddi bu subaa dinaa kat def loo xam ne ba ilaa yawmil qiyaam ñu di ko waxtaan loolu ni sëriñ bi doxal sëriñ bi yomoos yomoos si dem ñu toog ba guddi gi xaaj asamaan si formé sal benn sangel sotti ndox mu sedd guy tere tere tere dafa jar di xar mbott yëpp a ngi sax bër set mbay mi lenqaliku gàncax yi jur gi yëpp naan toog ba mu naaj moom saay saay buur bi mu oolu waay da ko ñëw su yàlla ji xam na ma bu tawul woon waa ji ne ko dëgg dëgg buur ak respecté su yàlla ji tool woon noo koy def mënu ko xam fu mu ne mënu ma koo gis mais yow mii ko fi nekkal yow laa naroon a oo futti la tuur la ndox ba nga tooy ma fëggalee leeraw ba sa génn bi yàqu dem woon nag sew sew ngok ndekete yàlla tuur ndoxam moo ko gënal toroxal nitam déggu leen li ma wax sax déet wa kaana xaqan alayna lii dal na xel wa kaana xaqan xaqan sax la wax alayna waajib amul ci yàlla xaat mu amul ci yàlla mais jaadu gu mu taxal boppam kataba aleykum rahmat bi nafsihi nag la du benn sabab ama ko kay li mu tudd mu seet sëriñ ba rawoon ci jamono boobu oolu ko na ko yow dégg na yaa fi nekkal yàlla réew maa ngi en gàncax gàncax dee jur gaa ngi dee nit ñaa ngi dee ak mar façon bu ne def nañ ko tawul waaye nee ko bu tawulee tey ci guddi bu subaa dinaa kat def loo xam ne ba ilaa yawmil qiyaam ñu di ko waxtaan loolu sëriñ bi doxal sëriñ bi yomoos yomoos si dem ñu toog ba guddi gi xaaj asamaan si formé sal dënn san ngelaw sotti ndox mu sedd guy tere tere tere dafa jar di xar mbott yëpp a ngi sax bët set mbay mi lenqaliku gàncax yi jur gi yëpp naan toog ba mu naaj moom saay saay buur bi mu oolu waaj da koy ñëw sa yàlla ji xam na ma bu tawul woon waa ji ne ko dëgg dëgg buur ak respecté su yàlla ji tawul woon noo koy def mun ko xam fu mu ne mënuma koo gis mais yow nii fi nekk yow laa naroon la oo futti la tuur la ndox ba nga tooy ma fëggalee leeraw ba sa ginnaaw bi yàqu déglu woon nag sew sew ngok ndekete yàlla tuur ndoxam moo ko gënal xooxal nitam déggu leen li ma wax sax de wa kaana xaqan alayna lii dal na xel wa kaana xaqan xaqan sax la wax alayna waajib amul ci yàlla xaat ma amul ci yàlla mais jaadu gu mu taxal boppam kataba aleykum rahmat bi nafsihi nag la du benn sabab am na ko kay li mu xir na invité te day wax ne képp ko sonn wërsëg ba mu lew la nga bëgg ci ko jigéen ba mu lew la nga dox ko dépasse mu toggalu la lew nga oosay naw lew wàcc sa bopp ba antena tibba di leen sexal yàlla araamal na sa yaram safara sëñ Abdou ne koy def leen sëñ Abdou moom nu mu dégg ne bi def na ko rek mu nga ci dafa xaw a niru imaamu Saafi'i imaamu Saafi'i lu ne bi def def na ko lu mu def rek nee na leen rek laa luppil rakk ji tudd Aliyu maam doom ji tudd Faatumatu may ko nga oosay nawle wàcc sa bopp ba antena tibba di leen sexal yàlla araamal na sa yaram safara sëñ Abdou ne koy def leen sëñ Abdou moom nu mu dégg ne bi def na ko rek mu nga ca dafa xaw a niru imaamu Saafi'i imaamu Saafi'i lu ne bi def def na ko lu mu def rek nee na leen rek laa luppil rakk ji tudd Aliyu maam doom ji tudd Faatumatu may ko ko loolu rek laa am mu invité saaba yi toog mu tibb sa xel day def nga lu kenn musuloo def nit ñëpp ku ne benn nga ko jox waa ji ñetti yoon mu ne na may def dama tibba jox ko mu sàqar mi jibril ne neex ma rafiqu moo tax ma tibbaab ko jox ko mikaay ne neex ma sadiqu ma tibbaab jox ko yàlla ci boppam ne neex ma atiqu kon ababacar sadiq baax na ababacar atiq baax na ababacar atiq baax neex ma rafiqu laqad sawa ma kaana maqili waqad naama taata saalata waalami dara gënu la jafeñ maaseeg wëli yu jëriñu ca maaseeg wëli yu jëriñu ca Ababacar li mu def dafa jafeñ ñaari at la ko nabi mag ak ñaari weer gënu ko foor néeg ndey ci saay gi mu ëpp ko alal foof wëlbati ko di surgaam xamal joom booy seet affaire yi Ababacar ngay jox coupe bi xam nga lu tax nabi kër bi muy génn màkk amu fa jabar amu fa doom booba amu fa ndey amu fa baay moomu fa génn ginin amu fa benn opération amu fa benn tam kooku génn dëkk bi yomba na ko Ababacar kay ñu jaaxal nit ñi moom mu fi wax ca ndeyam baayam capitalam opération ay toolam yor loxoy neen te ne nëbbi tànk boo jéggi mu suul ko loo soxla ma faj ko mais ma rafiq kenn ko laxat sawa makaana maxiri jibli def ne cëpp xool nëbbi nëbbi xool ko mu ne ko yàlla waa nuyu ne nga wax Ababacar ne baal na ko dellu indi wu sax aaya alquran bu oolu Ababacar ne ko moo ponkal mi loo defati Jibril da ñëw na fi indiwul aaya alquran indiwul atte dina yàlla ne baal na la rek mu ne ko defuma loolu li ñëppay def te mu ne ko ah am na loolu mu ne tekk ne ko ah ñetti weer nga dem ma amee ko na bi ne ko lu tax musul ma ko wax mu ne ko suma toggee yow fàtte ko mu ne ko ci nga ko amee laqad faaza ashaaba nabi lima laa mawda قرار من القلب مقيء سلام دمالي لقد كان جل الباب في يوم روعة موته بخطبة بسبب ما قال مدى مالك أصحاب النبي لما لا مولى كما أجمل من لقد فاض أصحاب النبي لما لا مولى قرار من القلب نقيع لا مدى مالك أوه. والقرآن cawakkaam kii baayam yàgg naa bëgg yonent bi de waaye ma jëkk a def xayru diin dinaa wax Abdou Diouf fu ñu deeti jànge nga dem teg duñ la jox dara papaam Abdou Kan kan de moom démb laa ko mujjee waxtaan yi cawa cawa ku la ñawal cawa ku la ñawal góor a fekk na de nu fi ne na Ababacar li mu leen rawe du ràkk na day wax déglu leen Sidi Ababacar waa u u- u sagar waaw gën ciw sa yóbbante baa nga kër ga aji sagar alaaji alaaji kay nga ko sarax sagar alaaji kay nga ko sarax ah yow lu koy jox yonent bi ne Ababacar li mu leen rawe du rakk yu bari du xaalis bu muy joxe shay'un qarara fi qalbihi bu la musaa féete ngelaw lu mel ni ras bu yiy lakk moo lay xeeñ xol bay tàkk ngir ragal yàlla nabi daana wax ne ñu mi ñetuma wax Ababacar dara ci yàlla mu sooy ci sama loxo moo tax keroog bi nabi dee bi nabi génne àddina ñëpp gëlëm ku ne pertal ko mu woy bët set na Seydina Omar li muy am fit yëpp perdal na Seydina Ali li muy ñeme yëpp perdal na Ousmane perdal na Maodo dàmbale na loolu ngeen a woy Omar dafa tiit ba lafay noonu la jóg di raam Seydina Ousmane boobu du tourné Seydina Omar fu mu fekk xale yi daje mu ñëw naan nu ngeen di wax lu xew ku ne nabi dee na ma rey la Aliou dafa nuug di def nii déglu alaaji waay déglu woy bi rek xale bi woy lii laam gi xas bu la xat di tax xiix la laqad taasat al albaab fil yow mi dafa li fekk laam bu wax yow ma isin fil yow mi روعة la xam aajo bii nag dafir moo doox wax ko fen sax billahi laxa paasatti billahi gëlëma ndoona naawa ndoona lal baabu xoli saaba yëpp fil yow mi ci bis bi ne bi déparé raw atan ngir tarub ti mu ne bi xutbati yi ci yetam waa moom xutba la faa ci la jot si uqoolu gàtt yaay ñoom xel ya keroog bi ñu nebbi dee na dafa mel ni ku yor nag woo yeew ak fàlleegu nëb gaynde yëmu ci wetam ah bañ ne Moustapha génn na àddina noonu la seen xel yi mel xel wu ne dafa dog réeri borom dem ca ñaay ba alaaji Malik ne yet wi Ababacar jëm du yet xutba la soppi wu yet di xutbatihi ca yetam waa moom xutba la baa ay ci la jot seen si ukoolu xolikaay yépp ricc kenn du moom dafa am jigéen ju baax jëkkëram tukki yàgg ci lool mu génte garab gi ci këram daanu mu xëy dem wax ko Moustapha mu ne ko kon de musiba am na booy boo téeñ bi sa jëkkër dee na mu wëññeekuy ñibbi dajeeg Ababacar Sadiq di jooy waaye waxu ko fu mu jóge waxu ko liñ ko wax lu xew mu ne sama jëkkër dafa tukki ma génte garab gi ci këram garab gi ci kër gi daanu ma xalaat ak deem mu ne ko demal bale sa jëkkër dina ñëw tey na fi kat ne na ndaw si ci suba demal tiiñ bi sa jëkkër dee na ma dajeeg Ababacar waxu ko ci ne bi laa jóge wax ko lu ko dal mu ne ko demal bale si jëkkër dina ñëw tey daf si jaaxal dem toog tuuti was wali si ak si tuuti waa dina jàll mu tànqal ko ndox muy sangu jibril ni cëpp ne nabi ndaw su fi ñëwoon tënk ne ko sa jëkkër dee na la nga waxoon a am waaye dafa dajeeg waa ji ma tuddee wax kati dëgg muy Ababacar Sadiq mu ne ko dina ñibbi si tey moo tax ma delloo ko woon pour mu ñëw waaye bu sangoo ba noppi dina deeaat sunu sëriñ di seen sëriñ di suñu soppe xaaj bu ñu àggalee sayidina bale bëgg naa mooy waaye na ma bëggoon nu mosal xaaji Mansour mu mag magu xalifa bu tedd bii li mu nooxal baayam comme nun mënu noo fay alaaji Maalik am na lu ko doomam di wax Mansour waxal waxaale nu ca ñu bànnee xoo ko olof ne nañu ku fóotal roccin kañ kañ kuy mbëtt mi alaaji Maalik kuy bar bi Mansour kuy mbëtt mi rasulullahi kuy bar bi Cheikh Ahmad Tidiane kuy mbëtt mu mag mais mag maam yàlla kuy bar bi rasulullahi kon nag ngeen déglu ñu laaw farudun alal ibni shukrul walidayni mu ngi mel ni wax ji magam ji wax jëme ko ci abal faydi ak ji rakam ji wax jëme ko moom itam ci abal fayt yàlla nu yàlla taas ci seeni leer ak seeni leer way jur isa allah nag la ñu bëgg mu yee nit ñi ba ñu yeewu